de nan konte ngaa xam luñ la waxul balaa ñuy jëfeeg yow loo xam ni doo ko foo moom jiital gëm sa bopp wax ak Fansu Bodian kilifa diine ca Sigicoor ne ko wër naa kër diine yi ñaan jàmm ci réewum Sénégal kalaame président Macky Sall tey ji yegg si naa ci yow ci Casamance dem na seeti monseigneur Fulgence Coly ne ko ñaanalal senegal ndax fi mu jëm baaxul dem na seeti buuru usuy ba di simbu lamba jeeju ne ko ñaanalal senegal ñaanalal Ousmane Sonko waaye tam yedd leen président Macky Sall dem Ibrahima ak moom ci réewum Sénégal mi nga xam ne daanaka moo bañ bu yànq soriyantoo wuñu guuta dëgg la Sénégal nekkee ma nga naan moom gay fu ma dem ci réew réewum Sénégal sàkku na ay ñaan ngir Ousmane Sonko waaye itam sàkku naa dal dal di ñëwaat ci réewum Sénégal dal goo xam ni fi ne mi ngi tegu ci ndoddu benn nit dong ci réew mi ma ne ko kanam mun ma xanaa président Macky Sall l'évidence yéene kaay naan man bugaa na ngay kalaame te naan Sall ngaari lam tooro burge de xamal luñ la waxul bés boo jéemee toogaatee ci réew mi dina metti ci yow wala l'observateur loo ci déggit dialogue ba moom ngay dox bien bon critique yéen kaay naan kon mbaadu dogal yéen fa jël nag dafa war a suuxal askan wi l'observateur naan kon en tout cas ña ngay xool ne saafara ba ni saraaxaat ci gém bi Karim Meïssa Wade Khalifa Ababacar Sall sal Gueye Dany ci la témoin yéen kaay naan président Macky Sall comploteur la leen ko critique yéen kaay naan kon mbaadu déggoo yi ñu def ca dialogue boobee moo nar a nag ay tànk Sall ngaari lam tooro fa yallaaxu l'observateur naan kon en tout cas Karim Meïssa Wade Khalifa Ababacar Sall seeni kaa moom mat na sëkk daañu bokkaat ci lang dëgg gi soobuwaat ci gém bi bokkaat ci élection ñoom ñaar nag dañuy soppe article L28 alinéa 3 ba nga xam ne dana tax Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall bokkaat ci élection ci réew mi Karim a Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall bokk ci élection présidentielle yi Khalifa Karim Meïssa Wade Wade nag ca dialogue politique ba la ñu gisub déggoo ne képp ko xam ne da nga am grace présidentielle L28 léegi dina la may nga bokkaat ci élection ci réew mi wala it ñu daal di lay daan nga tëdd lañ la daan ba génn L28 dalay mayaat nga mën a bokk ci élection ci réew mi te ñoom ñaar ñëpp di Karim Meïssa Wade ak Khalifa Babacar Sall dañu leen gracier te loolee soobaat na leen ci langu politique gi coow laa nga cëppandub teen ba la tee moo yéene kaay ne ma kaa Ousmane Sonko nag moom la ñu daal di galgal wékk Walf Quotidien naan maan ñooñu Ousmane Sonko fi mu ne la ñuy xool xool ndax bu Sonko mënta bokk ñu xool yoon wa ñuy jaar coow li coow li yéen kaay bi naan man dialogue bi saafara wul coobal troisième mandat l'observateur naan kon troisième mandat bi amuñu ca déggoo le témoin yéen kaay naan société civile moo koy yeexal ndax dañu ne société civile dafa ne nañu tënku ci constitution bi société civile naan leen déet constitution ba kay la mu wax leer na kenn mënta def lu ëpp ñaari mandat ci réew mi te président Macky Sall leer ko ni def na ñaari mandat jeexal na tribune yéen kaay naan ñu ngi koy tëñ tëñalee fu moom président Macky Sall ndax ubbi mandat yéeni kaay bi naan maan jegeewul sax ak lu koy nar bàyyi moom sàll ci tànkuk def geneen mandat ci réew mi la ne tribune yéeni kaay naan maan boobu Ousmane Sonko day ma ngay génn di waxi dëggam moom Ousmane Sonko ci li nga xam ne mi ngi koy dund ci réewum Sénégal Ousmane Sonko naan senegal gii duma fi àlla futi waaye maa ngi fiy dund jaxannama goo xam ni maar day taali Sonko naan lenn dong lenn dong laa def ci réew mi nekk opposant boo xam ne mayuma dara président Macky Sall rax ci dolli nag kenn mënumaa taqal lenn moom Ousmane Sonko naan siiw naa Sénégalais ma lii de moo naqari président Macky Sall ba sama jëf ji mu jàppee ko crime ne ko faatu bakkan ñu ngi ma tëj ci ruq goo xam ni maar day taali ne ma doo génn Ousmane Sonko ne kenn mënu maa seet si avocat yi nga xam ne ñooy jéem a dugg ñu leen di caxat-caxatee di leen brutaliser ci loo xam ni nag seen liggéey dong la ñuy def naan waa bitim réew may leen ma nopp di ngeen dégg fukki at ak benn ngi nii moom président Macky Sall nekk ci bopp réewum Sénégal adversaire boo xam ne samp nga ak moom ndënd te mu jàpp ne mën ngaa yëkkati ba biir weex teg ci suuf président Macky Sall galgal na la faagaagal la yëkkati sa ndënd tàbbal géej la mu def ñeneen ña ma jiitu woon sàll day ci tànk yi la nekk ngir def ma ko faagaagal ma ba du ma bokk ci élection saa bu jub see nag moom président Macky Sall am na candidat bu muy faagaagal Ousmane Sonko naan faagaagal gii jur na diggante benn fan jàpp ñetti fan ci weeru juin bii fanweeri bakkan rot na ci réewum senegal ñeent ñoo xam ne ba nii kenn xamul fu ñu bokk lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar doomu aadama am nañ cay gaañu gaañu fukk ak juróom gaañu gaañu ay bal leen naan te coow li coow li leen na ko jur moom moo di président Macky Sall bëggul ma bokk ci élection ci réew mi te opposant la boo xam ne dama koy déranger turbine yéen a kaay naan kon jàppal ni Serigne Saliou Gueye ak Pape Ndiaye moom libéré nañ leen waxtu woowu président Macky ci le quotidien le quotidien ma nga naan réew mi moom jàmm ak dal rek duñu nangu kenn koo xam ne mi ngi caxat caxatee réewum Sénégal état de droit moom deesu ko laam-laamee te deesu ko négocier ci réew mi am rek Abdou Karim Fafana ci Vox Populi naan xam nga mata di weesuwul waxtu wa xam ni gaa yaa ngi denc seen ñëw nga taxawati naan da ngay amal marche ci réew mi waxtu woo xam ne nit ñaa ngi feete tabaski ji xar daal di seer lool ndax nit ñu ñemeetu ñu andi seenu xar ndakaaru nga taxaw ne da ngay organiser ti beneen marche waaye état bi dana taxaw temm ci képp koo xam ne nag fas nga yéene salfaañe loo xam ne doomu aadama yi gor yaa liggéey ci seen ñaq tàbbal géej ñu daal di daal ci sa kaw Ousmane Sonko naan leen déet yéen kay réew mi lenn ngeen fi nekkee moom moo di caxat caxatee ma salfaañe samay àq ak fu ma teg ngeen ne ma teggil ngir bañ nag ma samp samam dënd ci réew mi réew mi quotidien naan maan Ousmane Sonko ngay wane nag ay chiffres yoo xam ne dëgg-dëgg ma ngay génnee ñaawteef yi nga xam ne Sall ngaari lam tooro bur géde ak i ñoñam teg nañ ko ko ci réew mi réew mi vox li xamal ma ni kap day daal dinay deltu ginnaaw ci conseil des médias bi mu waroon am waaye tam aljuma ji nga xam ne presse du am ci réew mi ndax nee na nag Serigne Saliou Gueye ak Papa Ndiaye bàyyi nañ leen Dakar Times naan kon coow li ci réew mi mbaadu loxol Qatar daf ci nekk ndax nag def nañ ci l'enquête boo xam ne fépp foo xam ni réewum Afrique la te mu am pétrole ak campagne ne réew moomee bien bon di yàq ak dafa def la ko saf boobu ay ñooñu président Macky Sall ña ngay dal ci kawam bokk na ci nag soxna Scalabas bokk gis-gise nga xam ne ñoo nekk ca diiwaanu Kaolack ña ànd ak Papa Diop di xam leen ni dañ leen fàtte ca diiwaanu Kaolack jaara jaw ak ña àndal naan président Macky Sall fexe nan ba amal suñu bopp ñaar fukki million séddale ko suñu ñoŋ waxtu woo nga xam ne ñu ngi féetee waa APR financement du poste boo xam ne président Macky Sall gestoo na ko soxnay bokk gis-gis yi te naan kon moo ne day Papa Diop amul loo xam ne déggu ko ci réew mi ca rajo fàttali ko ngir yow sàll waxtu woowu ay ñoñam rawatina ay soxnaam da leen fàtte lu toll ci ñaari téeméer ci soxna di tuñ tuñeel seen bopp ngir di dimbali seen bopp waxtu woo xam ne yaa ngi financé ak di jàppale yeneen i jigéen fàtte leen tribune sport naan maan la ñu deesul fàtte mooy jongante xaritoo diggante Sénégal ak Brésil bii mooy bu njëkk ab équipe bu Afrique daal di daan Brésil ñeenti bal niki démb ñooñu Sadio maana yi def nañ ko ca Portugal daal di dóor Brésil ñeenti bal ci ñaar l'observateur naan maan ñiy def ci xol yi neex neex mooy ñiy jaay seen bopp xale bu jigéen bii ne naa leen wax benn anecdote nag bés nag dama yóbbu benn xale bu góor foo xam ni maar day taali ndeke mag may matt ba deret di génn ci man ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm abonné leen si suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew